ça ne passera pas te nit ñi ko nangu leneen li mooy di wax tey délit bi ça c'est un précédent dangereux mooy premier ministre musu fee am doole boo xamante ne ku ko tudd ñu jël la tëgg kaso bi boobaa dina bëri ñu koy ñu koy bëri ñu dem ci kaso bi ba commencé ci man mii parce que man faalewu ma Ousmane Sonko ragalawu ma Ousmane Sonko Ousmane Sonko pour man n'est pas un exemple de type sénégalais tey bu nekkoon ci république bu baax lañ nekk dëkk bu bu baax lañ nekk tey Ousmane Sonko waru fee nekk ministre fi nekk premier ministre pour man c'est ça maintenant nag les juges le procureur tey nga xamante ne moom son Sonko saaga woon na ko ndey saaga ko bàyyi procureur juge yi fi nekk tey Ousmane Sonko saaga na leen traité na leen de tous les noms tey ñooñu noonu Ousmane Sonko sant leen pour que ñu def le sale boulot je pense que tey li gën a am solo mooy justice va justice bi dina dina parce que dañ ko bëggoon yóbbu lu ñuy wax euh, euh, tey flagrant délit lañ ko yóbbu parce que amul lenn lu ñu koy toppee loo xamante jar na instruction pour man ñuy tudd ay Bah Diakhaté ay Wave ak ay nekk Money tey journaliste yi ku ci ubbiwoon seen Wave gis ci ay ay envoi mhm. loolu mooy mbir mi tey ñoom politiciens yi muy saagakat yi nekk féete côté Pastef bi ku fi ubbi sa Wave ñu fekk ci dara pour man aussi maa ngi wax enquêteur digg yi nañ def attention ñu bàyyi données yi ñuy jël di ko di ko di ko di ko di ko def ci dans la presse parce que c'est ne ça doit rester ci li nga xam ne moo xew ci fi amoon lan moo ko waral waaw xeex bu fi amoon tension la dafa am ay tooñkat lañu. Hmm. am un militant bu Pastef ñëw ci biir fekk ci biir ay ay ay nit taxaw depuis suba lekkuñu naanuñu taxaw nga ñëw provoqué leen saaga leen. Hmm. nit nag boo ko fekkee saako loola fekk yaa yaa ko ci yaa ko def sa bopp loolu mooy mbir bi. Hmm. gisoon nañ ko keroog jour dëkk bi ngeen gisee peut-être ay journalistes yu bëri nekku ci woon on avait gazé on nous avait gazé mais loolu lu ko waral tamit benn waa Pastef moo fa fekk saaga saaga Pape Malick Ndour la mooy ñoom lan lu ñu xam mooy saaga lu ñu xam mooy xaste lu ñu xam mooy wax ju ñaaw loolu mooy mooy topp nañu encore ba tribunal ñëw fekk ñu fii di ñu saaga ñun nag du ñu nekk kenn bàyyi nañ rek jàll ku ñu saaga ku ñu xuri ñu ñu gàjj la ku ñu ku ñu joxoñ ñu damm sa baaraam loolu mooy mbir mi te c'est clair parce que nag fii lañ juddoo fii lañ màggee te ay ragal dëkku fi léegi nag dina ñibbi këram parce que deful dara parce que lii ay mbirum tappale la lii ay mbirum naxasaale la li leen di sant mooy nañu wàññi dund bi lu ñu waxoon lu ñu leen di sant nañu fexe ndaw ñi liggéey li leen sant mooy nañu fexe paysans yi tey jot seen jiw parce que taw bi commencé na ba léegi jotaguñ seen jiw lu ñu leen sant mooy tey nit ñi ku nekk tey lu fi Sénégal lu fi Macky Sall def ci kilomètre autoroute ñoom ñu fexe eggali ko BRT bi mu yem na Guédiawaye na fexe dem ba Kër na Diamniadio yem na aéroport Diass na TER bi fexe dem ba Mbour dem ba yooyu yooyu lañ def nañu fexe eggali projet yi ñu fi bàyyi mais nekk fi di tappale di wax ay assises de la justice yoo xam ne euh, tegul fenn indi ay assassins yoo xam ne dañ leen di teg pour ñuy mm-hmm. bu ñu bëggee jàmm ñun jàmm moo ñu gën lu ne parce que nag on tey on est des te lu fi nekk yëpp jàpp nañu ñoo ko tabax. Mhm. te duñ ko toj duñ ko yàq. mais nag duñu tere suñu liberté d'expression dinañ ko wax lu ñu xalaat dinañ ko wax te tamit lii terewul lenn loo xamante ne tey dina dina dina dina gën a gëm tey lii day gën a yokk suñu engagement day gën a yokk suñu taxawaay te dina gën a yokk suñu ancrage tey dans l'opposition parce que nag pour rappel à Sonko ñun ñoo ko ay xale lañ moo ñu mag mais ñoo ko jiitu ci politique parce que nag on te Abdoulaye Wade yaakaar naa ne un fin politicien Abdoulaye Wade koo xamante ne tey xam lu mu doon def on s'est opposé dignement avec Abdoulaye Wade donc c'est pas avec ces amateurs là que un duo qui gouverne qui nous gouverne que dinañu ragal tey opposé ak ñoom te dinañ ko def dans la plus dans les règles de l'art dinañ ko def parce que nag dinañ wax ñu xalaat mhm. le reste nag mooy ñu woo tous les camarades républicains yoo xamante ñu ngi fi di woo la loolu laa bëggoon a wax itam taxawaayu parti après ñi nga xam ne ay. xam nga xam nga tey tey c'est au-delà de l'APR ça c'est le Sénégal aujourd'hui mm-hmm. Mm-hmm. tey taxawaayu man mun naa ne taxawaayu ma taxawaayu APR taxawaayewu ma tey jege naa ne Amadou Ba mm-hmm. taxawaayewu ma tey damaa taxawaale ndax doomu banlieue laa yëmbal laa dëkk ñu jàpp doomu pikin ban yëmbal ak Pikine benn lañ loolu laa fi taxawal di sénégalais taxaw fi pour que Bah Diakhaté mën a ñibbi këram ay waajuram lañ ko ay waa këram lañ ko soxla tey Sénégal da ko soxla ndax il donne des informations leneen li mooy xanaa colonel colonel xanaa nekkul Sénégal hmm. xanaa nekkul Sénégal lu ko teree ñëw porte plainte xanaa Ndiaga Seck nekkul Sénégal hmm. lu ko teree ñëw porte plainte pour man le dossier là c'est pas Ousmane Seck Sonko kese la ci tuddoon te bokk na ci fait amnistie mais pour man jàpp naa man de ku ma jiiñ góor jigéen ku ma jiiñ góor jigéen doo fanaan dinaa la porter plainte man Omar Sow parce que góor dëgg laa donc loo ñooñu loon ñu jiiñ ko anañu lu tax porte ñu plainte pour man yaa anguille sous roche et ce débat d'homosexualité là dañ ko war a dañ ko war a régler une bonne fois pour toutes mooy lan fii homosexuel waru fee doxantu góor jigéen waru fee am kër góor jigéen waru fee law parce que nag fii dëkk diine la dëkk maam limaam laay la dëkk Serigne Touba la dëkk El Hadj Malick Sy la dëkk jàngo bi la parce que tey aujourd'hui euh, ñun nag on va rester dans nos dans nos gardes et on va se battre on va se dresser contre le régime. Amadou moom dem li ma wax mooy li ma wax tey dinaa répondre li ma wax tey loolu taxumaa jóg mais je vais répondre parce que man nag lépp lu may def dama koy assumé man du lakkatu ci ginnaaw kenn man je suis avec Amadou Ba je suis avec les camarades yoo xam ne tey gëm nañ ne tey dañoo war a ànd suñu ànd ak Macky Sall peut-être dafa war a dakk loolu man loolu laa gëm léegi na Amadou Ba day génn APR ak du pas à moi de le dire mais man jàpp bu nekkoon man la lu mu daj APR pendant dix ans wala pendant huit ans bu nekkoon man la damay génn APR damay damay ànd ak moom effectivement te maay nekk le premier militant ànd mën na xaar loolu mën na xaar waaw j'espère que dama ne woon jërul woon muy taxaw sax kon tey foog naa ne bu taxawee day wàcce leen micro tuuti. xam naa juste bëggu jërul woon muy taxaw parce loo xam ne mm-hmm. man jàpp naa ne fan la eh, euh, dig la waroon a yem mm-hmm. dossier bi dossier bi dig la waroon a yem mm-hmm. ndax dossier boo xam ne dañoo jël ay vidéo yi yàgg bëgg ñu cee nax jël ko ne Bah Diakhaté lii la wax Ousmane Sonko premier ministre te vidéo yooyu date yi mu ngi nekk en deux mille en deux mille vingt deux en deux mille vingt deux mhm. la vidéo yi nekk ñu ñëw bëggoon ñu ci nax far ñu démontrer ne leen lii ay nax la ndax lii lu yàgg la ndaxte la rey nit ña ca bis ba la nga xam ne si moo moo génne ñoom ñi ñu jàppoon dugal leen ci kaso bi loolu moo yóbbaale vidéo yi mhm. bu dee nag dañoo voté une loi si boo xam ne yow en tant que président boo ñëwee da nga ciy seppi yi la arrangé yi nga xam ne si yow loolu la arrangé nga ñëw di ko toppi nit loolu du jàll ñu xam ne loolu jàllul ñu ne voilà dafa diviser fausse nouvelle ñu ne dafa diviser fausse nouvelle léegi nag nouvelle yooyu mu diviser te mu nekk fausse ñoom dañoo amoon obligation leeral ñu yan nouvelle la wala nouvelle yi amul tur xam nga soo nee yi mu diviser faux la da ngay démontrer ne lii faux la waaye division de fausse nouvelle yaakaar naa journaliste yi yëpp kenn mënu laa génneel ne la faux bi lii mooy faux bi li mu wax ci kër gi biñ ne jomaay da koo jaay Cheikh Diba mais bu dul dëgg na jomaay yónni euh, nu mu sax na yónni agence judiciaire de l' état mu ñëw taxawal ko fii indi kayit yi wane ne baa da ko sosal bu dee Ousmane Sonko daam lu mu ko waxal te du dëgg na yónnee avocat mu ñëw fii wane ne dafa sosal Ousmane waaye toog ci biro bureau sanni sànni pataas bu tàng procureur pour nga yaakaar ne moom procureur day jël pataas boobu di la ko lekkal du ko def moo tax mu indi ko flagrant grand délit parce que am na loo xam ne su ay nit jugee kalaame ba neex leen ñu ne léegi procureur sax moo auto saisir mel na dañ ko sànni pataas bi moo tax procureur ne leen bu ñu demee flagrant délit ñun atte ko mu jeex parce que du du ngeen ma saraxe bugg dañ ko bëgg a saraxe bëgg ko jaxaseeg askan bi parce que am na loo xam ne bu dee Bah Diakhaté daf ko wax te vidéo bi ñu dégg Bah ay fee la ci nettali fee yi mu nettali nag bu dee du dëgg na ñëw contesté ko à la barre waaye duñ toog ci seen climatiseur yooyu uuf seen i jongoma ñëw taxaw fii di di di di bëgg a saraxe jàmbur bi loolu du fi am de ñu ko atte Bah Diakhaté ñibbi këram ci nu mu gën a gaawee te dama leen wax baa ci biir duñ am jàmm ndax semaine bii xam na liñ